lan moo war a doon différence bi ba ñu xam ne dugg nañ ci at bu bees nii mu bëggee ñu doxalee daal Madické Niang nee na bu ñu ko doxalee Sénégal mën naa gis boppam ci beneen émergence bu am solo ñu seeti Madické Niang salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ginnaaw yàlla ak yonent bi ñu sant sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général ku lu murid yàlla fi yàgg te wér njabootu sëriñ Masamba Mbàkke bi yàlla nañ fi yàgg te xam ngeen dafa laa jébbalu te sëñ Masamba Mbàkke wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne ci njaboot googu laa bokk ñu ñaanal njaboot gi yëpp yal yàlla defal jàmm at bi ñu génn nag at la boo xam ne wax dëgg yàlla jar sax fàttaliku mm. at bu bon at bu doy waar nga noonu at boo xam ne li muy yóbbu ci ay kilifa diina ñu bëri jooy nañu ci at boobu nga xam ne wax dëgg yàlla Sénégal da cee ñàkk ay ndaanaan yu mag ay kilifa diina yu mag ay nit yoo xam ne ci monde sportif ci monde culturel ñu bëri dem nañu ku ci mel ne Thione Seck dem na ku ci mel ne Lamine Diack sportif bu mag ba dem na ku ci mel ne ay kilifa diina ay xalif généraux yu bëri dem nañ ci kon at la boo xam ne toog di ko fàttaliku sax day tax nga sa rongañ tuuru waaye ñun ñaan yàlla yëpp yàlla nañ ko fàtte te at bi ñu dugg nag mu doon at boo xam ne atu jàmm lay doon doon atu teraanga lay doon at boo xam ne Sénégal ñun ñëpp dañuy bokk ndey bokk baay eh, dafa jot nag wax dëgg yàlla opposition ak gouvernement ànd liggéey dafa jot xam nga Idriss Seck bu duggee ànd ak Macky Sall loolu doyul dafa war a am ñu bëri ñoo xam ne dañoo war a ànd taxaw tey ne nañu gunge président Macky Sall ci liggéey bi ci liggéey bi nga xam ne du liggéey APR de Sénégal APR moomu ko APR barki démb Njaay la barki démb Njaay la yàggul APR barke Demba Ndiaye la fukki nit ak ñeent ñoo ko taxawal. ci 14 millions d'habitants kon ñoom tuuti nañu pour yor réew mi yaakaar mun suñ Mountakha. Bassirou Mbacké xalifa général ku lu murit moom moo xam ne am na ko la dàq politique. sëñ Touba denta na la ko te loolu gën naa ko ndax ci laa nekk di dund. na mu ma dara. ndax sëriñ Touba lu mu la bental rek am na loo xam ne boo ci. sëñ Muntaxa yéex na maa jox ndigal ndax xam na ne ndigal googu nga xam ne dama ko jox ba ma ko ba ma ko jëfandikoo ba tey jàmm rek laa ci gis paccax paccax bi doon am sama kër lambax lambax bi doon am sama kër jaabante bi porox ndoll bi jël buntu delloo jox di bëri coow li bëri yëpp amatul may liggéeyal ak Serigne Touba nag ci lépp nag Serigne tubaa mooy Sénégal Serigne Fallou Mbacké mooy Sénégal kon tey nag bu ma amee bu ma nekkee taalibe ci yoonu murid te Sénégal nag ñu war kaa développé ci beneen côté boo xam ne du doon politique Macky Sall lu muy xaar lu muy xaar ci man lu muy xaar ci man parce que am naa expérience dama tay di sonn di ko wax gis nga bu ñu làmbee feneen tamit du ñu daj man ngay làmb rek dañ ma tombé waral ay gaaf na ma sollu maron waaye bu ñu yaakaar ne maa ngi APR ajaa ko jokka di jënd démb ba waaye nag ñu xamal waa Sénégal nag wax dëgg yàlla le président Macky sàll nag wax dëgg yàlla tamit gis na Sénégal bu amee bu ñu defee dara na ñëpp tàccu ndax lu mu gàtt gàtt teer bii diggante dakaar ak Jam Jaajo fukki minute ak juróom neex na te nañu waxante dëgg rek même bu même bu seeree tamit neex na waa léegi bu ko defoon nag gis nga bu ñëwoon ba jam ñaajo day mbiij jël Cees xuus jàdd jàdd jël yoonu ilaa Touba bi rek raay bi def nii rek bee bee di dem Ndar bi jàdd tuubaa xam nga ilaa Touba ilaa Tiwaawan ilaa Fuuta yooyu ñooy ay projet yoo xam ne réew mi dinañ xam ne yaa ngi liggéey xoolal autoroute à bi diggante dem dakaar ak Touba léegi tisoo li rek yaaram kalaa ngi egg si waaye nag teer bi balaa ñu xam njëriñam mu yóbbu la foo xam ne da fa am njëriñ mm-hmm. néew mën a jam ñaajo amul njëriñ de <laughs> jam ñaajo Macky Sall tax ñu xam ko am na xale yoo xam ne xamuñoo sax jam ñaajo fan la nekk ci réew mi waaye nag damay ñaan président Macky Sall. mu mu mu xool ñi nga xam ne compétent nañu xanaa xamoon ne taaliba Mouride ak Tidiane ak Laayeen ak ak Ñaseen ñoom rek bu fekkoon dañoo taxaw tembe kenn ku nekk teer bi nga ñaan yàlla mu fekk la bërëb bi nga xam ne fa ngay dem pour jaamu fa yàlla tijaani bu ñu jógee jox li ñu am président Macky sàll mu booleeg li ma am bu ñu xëccee teer bi mu dem Tivaouane bu ñu xëccee teer bi mu dem Touba bu ñu xëccee teer bi mu dem Medina Baye dem ba Fouta <laughs> ba sama mbokk xaal pulaar yi xamuñu train ndax xam nga train bi ndar la doon yem waaye train bi nag mosul egg Fuuta te loolu yow war naa mën a am kon le président Macky Sall bu ñu wax dama tam nañ la félicité naan la ndokkale parce que nag xëy na seer na waaye jar na ko train boo xam ne danga ciy dugg xefe fi nga egg fi nga jëm dara dàq ko waaye loolu baax na fii toj na fii nee na fii toj na fii toj na fii toj na fii nee na fii toj na Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général ku la murid yàlla na fi yàgg te wér. amiin.